asalaamaaleykum so uh, second part bi nii dama koy wax about luy depression li nga xam ne moom lañ wax ne moo dal kii muy stress depression ba tax mu def lii ak askan bi ni ñuy dawee kàddu goog depression ñu di ko daw wala jos xamuñ ko ak di def yi ko waral yi nga xam ne moo koy waral surtout bu ni ki nekkee xale ba pare si nit ku su nit ki magee xamee ko duñ xam nuñ koy handle and stuff like this so dinaa si wax tuuti ak koo xam ne dal na la nooy def incha allah ba yàlla dimbali la soo gars yi dépression loo xam ne la is real askan wi surtout askan wi african ñemewuñ ko dañ koy daw because ñun ñu bëri loo xam ne la ñu ngi koy soog a xam léegi wala ñu ngi koy jéem a jàng tuuti te ba tey ñun ñu bëri xamaguñ mooy lan ak li koy waral wala suñ ko xamee sax duñ ci def dara dépression lu si bëri li koy waral mooy yërëm sa bopp dépression mooy gis yërëm sa bopp xam dara loo xam ne bëgg nga ko nga ñàkk ko ida nit moo la ko joxoon jël ko wala nit moo la ko xañ wala yàlla moo la ko xañ maanaam yàlla jël nit wala yàq dara yàqu wala dara but mainly depression li koy cause mooy jos xalaat bu bëri te xalaati yërëm sa bopp bugg dara xamoo ko wala xam dara ñàkk ko wala dara dal la ci gannaaw lu la neexut wala ngay dundul la neexut rey now loolu mooy depression rek soo continuer na di ko gën a xalaat ci lay nekk depression ngay gën a yërëm sa bopp di gën a xalaat saytaane ànd si ngay gën a yërëm sa bopp di gën a xalaat ba affaire bi ñëw ba ëpp la doole. li nga xam ne mooy main cause yi dee waral daf dee nekk xale boo xam ne dañ ko sexual abuse wala xale boo xam ne dañ ko doon dóor torop bu mu nekkee xale wala xale boo xam ne dafa xamoon dara lu mu bugg mu nekkee xale mu ñàkk ko mais ni nga xam waajur bu baax nga ñàkk ko ba pare keneen yar la di la toroxal surtout bu dee keneen ki la yar fa la doon toroxal ba tax ngay xalaat sa waajur boobu di ko namu wala nga xam dara loo bugg torop mu mu ñàkk nga ñàkk ko maanaam ku jege wala dara ba lu si bëri waajur wala wala mën naa nekk yàlla traité ko sa mag wala sa an stuff like this ngay namm di ko xalaat kaw nu ma la ko waxee xam dara loo bugg ñàkk ko daf ko dee waral tamit. sexual abuse xale jël ndawam muy góor wala jigéen nga sexual abuse xale daf ko dee waral parce que loolu mooy ne ba tey xam na dara lu mu nga jël ko si moom mooy xam na dara lu mu bugg te ñàkk ko. xam dara loo bugg te ñàkk ko xam dara loo xam ne moom ngay xalaat ne loolu nga bugg te xamoo ko ngay foog ne doo ko xam wala xamoo kañ nga koy xam loolu yëpp daf dee waral dépression. even dundu poverty. dund pauvreté boo xam ne Afrique boo ñàkkee ñu di la ñaawal bu bi julli sa bu ko xale bi xamul ñu di ko ñaawal wala jos fekkee waay waajur yi dañ nekk di jàmbatu di yërëmtalu a xale bi di sonn plos ñu di ko dóor dóor yëpp tegal ko ci loolu yëpp daf dee tax xale bi su magee mu am dépression tamit yenn pauvreté ak yenn safar yi xale bi di dund bu nekkee xale boot mën nga ko xam fekk yaa ngi nekk mag tamit nga bugg dara wala nga xam dara ñàkk ko comme nu ma la ko waxee rek loolu yëpp daf dee waral dépression also internet bi léegi ak film yeeg télé yi ni ñuy wane xalal ku nekk di wane xalal pour ñu feel good léegi nit ñi nga xam ne gëmuñ seen bopp tam mën nañoo nekk di yërëm seen bopp di xool noonu ba tax ñu xam dépression but mainly soo xamee dépression del julli ñaan lekk-lekk yu baax te tëdd nelaw te focus yu baax yi nga xam yëpp bàyyi di xool yi nga xamut incha waaye yow Ahmed yow Ahmed nag dangaa xaw a naafeq quoi mooy si problème asalaamaaleykum sëñ bi seex xawta naa feq de seex fa naa feqa naa feqa naa feqa naa feqa naa feq bañ di ko waaj a jaale ndax seex ku ko fekk muy wax si lii xamul dara lu muy wax lu di di tuutil imaam bi nga xam ne fa doon julli ñu fekk ko fam kàbbaree bay waaj a julli ñu di ko jéem a jàmpaaka nit ñi dimbale ko mu continuer di julli mu ne fay xut daal lu muy sikkal ci loolu daal xut lu muy def daal ba tuutil imaam bi ndax gis na ne imaam bi ñu ngi ko jàmpaaka te paaka bi duggut ba paaka bi dem ba leemu mu xam ne loolu maa xamay yàlla la ak imaam bi ni ko yàlla protecté mu xañaane imaam bi loolu tax mu ñëw di ko tuuti. ndax seex boo gisee muy def lii seex ci boppam du waxuma la naab fekk de waaye seex fa xalku te nekk nit koo xam ne Sénégal buñ ko uytuwut bara moo pareeg Sénégal billahi wallahi taala dana yàq Sénégal. Cheikh wax na ko ngeen fone fay kaf wax na leen ko ay yoon ne leen faale huma Sénégal faale huma nit bugguma kenn faale huma kenn ma niti intérêt lu may def lu ne intérêt la si moo tax ma ñëw di leen jaay ko ji ma leen di jaay ak a def ni may def pour xam xaalis yi yéen wax na leen ko jaxaran ay yoon li tax Cheikh xañaane imaam bi yàlla lim ko may ñu bugg koo jàmpaaka paaka ba duggut leemu mu xañaane ko loolu li tax mooy fa ñëwoon ti di jaay askan wi ne moom nit niti yàlla la maanaam fo xam yàlla di tari ay alxuraan aka sikkar aka def boppam sëriñ sax noonu la tàmbalee woon xaw ma ndax xam nga loolu léegi nag mu dem ba gis ne loolu doxut wala sëriñ yi dañ bëri loolu compétition la mu commencé di jaay di wax waxi caga yi waxi xaj yi muy wax di def business bu bon bi muy def nii nga xam ne fake la business bi lu muy jaay baaxut garab gi lu muy jaay du tax benn góor yaa gudd du tax benn góor yaa correct te boo ko yàggee use da nga am problème te euh, problème boo xam ne moom nga xam ba tax nga commencé di use garab seex gii doo mën a continuer ci garab gi te garab ak gi du la mën a faj su ma weddee laajal nit ñi koy use te am problème ndax faj na leen surtout suñ ko baxee te duñ mën a continuer di use garab gi kon garab gi dina am side effect dana leen yàqal seen àdduna lépp tuuru garab lu mu baax baax boo continuer di ko use du la jik surtout seex mu bon mi du lijjanti garab gu baax goo xam ne li ci nekk yëpp lu baax la woon rek parce que di jaay nit ñi bu géewul nit nit wax na ko ne moom niti intérêt la kon nag du xool luy jëriñ jëriñ nit ñi loolu fay seer te naqadee def fay seet loo xam ne rek suy baax it fay baax temporel te chimical yi ñu ko defee baaxut pour mu jaay ko nit ñi gaaw ndax mu gaaw xam because moom xam lay wut xalal lay wut niti intérêt la wax na ko moo tax mu tëb dugg ci business boobu noonu bot business boobu noonu yëpp féeg la xut xalaal ak pour bugg jigéen ak def pratique ji ko cagaam ji yàq askan bi di wax waxi caga di mbubboo ne lii laay jaay moo tax ma di ko wax loolu rek tax mu dugg ci business bi waaye business bi safu ko te business bi féeg la te bu seex pare ak Sénégal comme nu ma ko waxee rek pare ak Afrique tout surtout Gambie nit ñi dinañ ne Amie Jobe wax li jos pour nga xam ne dafa féeg te xañaane imaam bi lu ko yàlla may moo tax mu di ko tuutil mooy man su ma ko waxee dëgg par exemple ne ko sa jikkoy caga jeeg sa jikkoy xaj ji nga yàq askan yi ba ko mu ñëw defal ma vidéo naan ma ngaa seyoon bi nga defee gune rek nangam nangam gi nga nikk gëm boppam dëgg fay mel ni fa xam xaduna yëpp ci digg loxoom bi ba xamul dara it mooy gën a satisfy si xaduna dan nit nga xam ne mu ngi amee ay million wala xam leneen li ngay gis ba bugg ko te gëm boppam gëm sa bopp muy yëpp xalal jox xam ne santal yàlla te gëm sa bopp te xaar bul yàkkamti bul foog ne wéet nga ba tax nga xam xarit yoo war ta xam bul foog ne xaduna mu ngi yéex pour jox la li nga bugg wala xaduna du la jox li nga bugg ba tax ngay def loo war ta def wala nangu loo war ta nangu wala dugg ci loo war ta dugg xaduna lu si bëri soo buggee xam lu baax te nga gëm sa bopp ta nga xaar nga def lu baax li nga war a def pour nga xam ko lu ci bëri nga koy xam lu manti do ci xaduna nag lu ci bëri danga xam incha allah jos ngay xool li nga war a def pour nga xam ko nga di ko def te bul yàkkamti bul hut sotkot booy bëttee xaduna du sa magasin booy bëtt yoon yi ngay bëtt yëpp fa ànd ak ay fiit yoo xam ne buñ la nee karab moo raw bu janax dugg ci fiit gëmal sa bopp gëm sa bopp léegi dafa jafe bi ko gëma di sa bopp gi léegi nga si ànd ak jëlee ci xaalis wala jëlee ci nit ñi lay fake love wala jos yeneen yu ñàkk fayda yu stupide yoo xam ne moom la nit ñi di xool ba sànni seen gëm seen bopp asalaamaaleykum you know jos bëgg ñu waxtaare si àdduna si léegi nu mu mel ak doomu aadama njaay yi nuñ koy jëlee surtout ndaw yi ak jos ni ñi xam conséquences yu mu àndat ak fuñ jëm xëllëg ak xëllëg ni nga xamee danañ réccu te danañ nañ danañ toog ne su ma yëgoon hmm, danaa déglu képp ku ma dégg mu wax ma lu baax lu muy nu may def ba ma bopp ku ne bu duut sama waajuri bopp sax loolu laa bëgg ñu waxtaanee ko tuuti. yu noo àddina si léegi surtout ndaw yi ni ñuy def mooy nga leen di jur ñu ne la yow ni ma jur juree nii nga ne ko ah mu ne la léegi lii mooy sa nattu doo mos a am si àdduna nga ne ko ah mu ne la waaw mu ne la parce que nga maa jur nga ne ko ah mu ne la waaye man li nga yelloog man rek li nga war a def ak man rek mooy di ma tagg di ma gërëm lu ma soxla nga defal ma ko te bu ma wax dara maanaam nu may def ba protex ma bopp xam jàmm ndax man suma ma jàmm yow doo xam jàmm loolu bu ma ko wax dee ma seetaan may torox te suma ma toroxee yow nga torox bi ko su ma toroxee te dimbale moom mooy ne yow ngaa bon te lii moo tax waajur yu bëri léegi stress muy waajur yi yu know nekk fii Afrique foo munti gis waajur ñuul ñàkk ñu la ci xem ya surtout ñun doomi euh, Afrique yi nekk bitim réew fii wala even yeneen tubaab yi nga xam ne seen doom yi du ñu nangoo discipline wala ñun ñi nga xam ne suñ doom yi du ñu nangoo discipline nit ñi ñuy wax it's not like because ñoom dañ xam doom yu baax wala ñoom seen doom yi dañuy màgg ëllëg baax waaye loolu du la tere wax boo nee ci internet bi di wax pour lu baax ngay wax pour sa doom yi boo leen waxee ñoom si néeg a pare li leen di wax ngay génn wax ko ci sa vidéo yi nga dëggu ak sa askan sa doom yi des na si ñoom lu leen neex def te buñ magee ba cuus yoon bu bonit warta tax nga noppi kon mooy ne sa liggéey bi ngay def dëgguwu ci yow te ngaa gis nga mbiri góor jigéen wala mbiri jigéen jigéen du caaxaan taxaduna si léegi ñu ngi koy foxee mel ni ku mbiri góor jigéen wala mbiri jigéen jigéen du caaxaan mënoo soo mënoo see duggoo pare ne ngay dem sëy soo si duggee soo mënta contrôle sa bopp génn si na nga toog bul sëy wala nga sëy ak ñi ngay ñi ngi koy defal waaye ne ngay sëy ak keneen pour pour nit ñi buñ la xas wala ne ngay xam ñaari yëpp ñaari yëpp du ànd dafa mel ni diwlin ak ndox du mas a jaxasoo li xàngale di wax you cannot eat eat your cake and half maanaam doo mën a lekk ngato bi ba pare xamee ngato bi xas nga ko ba lekk jeex na maanaam doo mën a xamee ñaar yooyu ni ngay sëyi ba pare ni ngay nekk góor jigéen wala ngay nekk jigéen jigéen ok mbiri góor jigéen ak jigéen jigéen yi askan bi di foxantoo comme nu ma leen ko waxee du caaxaan surtout ni ñi nga xam ne soo waxee ñu naan o oh, you know maa xamee doom xaw ma lu ñuy dox xam nga lu ñuy dox ay mooy ne ngaa bëgg ñu nekk góor jigéen moo tax nga di leen wax lool pour hubbil xale yi bunt ne pour ñu nekk góor jigéen te góor jigéen yu bëri wala jigéen jigéen yu bëri dañuy fake nice pour ñu xëcc xale yi pour dugal leen ci seen jikko ji moo tax ñu fake nice léegi yow muy wax loolu good luck waaye lii xam leen ne du caaxaan